sëñ Modou Mbaye ak bokk yu baax yi teew yëpp suñu sori ak bokk yëpp rek góor yi ak soxna soxna Maam Moussa door a ñëw ak bokk yi teew yëpp ñi ma xam ñi ma xàmmee ñi ma xàmmeewul di fàttali ko borom kër bu tedd ji itam Cheikh Abdoul Moussa Fadilou Mbacké ak rakkam ju baax ci Cheikh Abdoul Amine ak Serigne Sidil ni ko waxee sànq nga xam ne moo joxe woon ndigal ci liggéey bi den fàttaliku ak bokk yi daan àndal liggéey bi yëpp sëñ am Ablaye tàmbali woon na ko sànq xolam tooy sëriñ kan dégg nga sëñ Babacar Dieng ak ak ak ñi ko daan àndal ñëpp ak si Abdoul bi si Moudou ànd liggéey bi te te geneen wet gi ne yàlla yàq yokk seen i leer te yàlla yokk na yërmande ak njëgal di dara ndax presse bi gannaaw yàlla bu liggéey bi yaatoo yéen a ko yaatal presse en ligne bi wala presse traditionnelle bi presse écrite bi ñu leen di sant di leen gërëm tey ñaan yàlla barkeel leen dafa leen jàmm dafa leen mucc dafa leen yokk ci barke borom Touba ndax al tabliir wala awil bayaan dafa bokk ci liggéey bi jamono ji jamonoy communication lañ nekk jamonoy euh, réseaux sociaux lañ nekk jamonoy euh, euh, presse lañ nekk bu defee yéen ci yëngu rek dañu sant leen gërëm ndax yaa ngi àgg foo xam ne bu toll yéen dafa mën a àgg waaw kon nag àdduna sépp nga koy siiwal kon ñu leen di sant leen gërëm te ñaan yàlla dafa leen cat di sant ñi di fi jël kàddu ñëpp nag kàddu yi rafet na matériel na soit muy en anglais en français en espagnol ak en wolof wax ji matériel mat la sëkk defe naa yi ñu tànn thème bi ñu tànn rek mooy diine mooy lislaam diine yi jàmm la ak ak jàppalente te nit ñi bu ñu amee jàmm am xam-xam rek jàmm di jàll xew te te Sénégal te loolu ñuy wax ne dañ ko war a contexté dañ ko dugal ci biir fi réew mi toll Sénégal naka jëkk soxla na jàmm waaye fi mu toll la raw ndax tension yi bari na yi fii bari xa attente yi bari na moo tax ñu tànn thème bi te ni ngeen ko traité am na solo lool gis naa ku nekk gis na ku tàmbale ko ci yonent bi sallallahu nekk woon dina dina jàmm islam mën ngaa jàpp boo ne islam baat bi mu jóg jàmm far ñu ne salaam mushtaq ñu ngi dérivé ci baatu salaam mooy jàmm kon islam dina jàmm ku ci nekk ku nekk rek eh, da ngaa war di jàmm di wax jàmm Sëriñ Tuubaa ne woon na jàmm xamul lu gën fii xamul lu gën fan jëm yàlla yàlla defal waaw ah, ufsu salaama wa sallu fi leyli wa naasu niyaam wa at'imu taam ba waajee ba ko yonent bi laajee nekk lu gën a gaaw ci dem ajeen dafa ñetti mbir rek del joxe ñam del tasaare jàmm bu nit ñi tëddee guddi di nelaw jógal di julli waaw entre entre taam wa afshu salaam wa sallu fi layli wan naasu niyaam waaw kon day leen joxe ñam wala joxe dañ joxe xéewal di leen jàmm te bu bu dee suuf sedd ba ñuy tëdd jóg leen dem seen borom ñi di julli kon jàmm dara jiitu kon lislaam ci bu diine jàmm la diine xam-xam la itam ndax ni ngeen ko waxee yéen ñëpp mooy ummatu iqra ñooy la nation de iqra lii ba aaya bi njëkk wàcc alxuraan mooy jàngal ay bi njëkk wàcc mooy jàngal kon diine jàng la diine xam-xam la diine gëstu la kon jullit bu nekk dafa war a gëstu bi juddoo ba ni muy génne àdduna dafa war a gëstu jàng xam-xam ummatu iqra diine tadaamun la solidarité diine jàppante jàppante goo xam ne islam da ko digle islam da ko jàngale yonante bi wax tudd ngeen ko ay yoon exemple yu baree bare ci biir islam dafa ci njëkk mooy mu axaa ba nekk fraternisation bi ndigoon diggante muhajir ak ansaar bañ gàddaay jóge Makka dem Madina fekk fa ay nit yonent bi mbokkale leen ndax ñoom dañoo jóge Makka bàyyi seen i alal seen lépp gàddaay ngir ngir ngir ngir sàmm seen pas-pas sallallahu alayhi wa sallam ak yéen ñu boole leen kenn ku nekk mu tànn ku mel ne mooy yaay sa bokk nga xam àggul nañu sax ku ci am ñaari soxna da ngay bàyyi benn ba bu bu bu defee idda ba ba mu jeex nga jox ko sa sa bokk wala tànnal ko ci bëgg da ngay wàcc ñaari yëpp wala ñu la ñett buñ ñu buuroo ba noppi nga ne ko tànnal ko ci bëgg ñu jox ko loolu am na gars yi bu ko bëggoon def la tey teewal dana bari waaye teewul seenu ngëm ak seen bëgg lu baax taxoon nañu nam ku ci am ñaari tool jël jox benn ba sa bopp ku ci am ñaari fas jox benn ba sa bopp ci lislaam naka jekk ci histoire lislaam moom looloo ànd ba ni ngeen ko tuddee sëñ Touba léegi naa tudd ngeen exemple sëñ Touba ni muy indee solidarité yow na murid ni solidarité defe naa ne wu fu ne waaye ni mën nañ ko tusa procuré fu ne te damay wax jàngi Sénégal ak Sénégal li koy lëbbee fu ñu toll ñun ñëpp ngeen xam ko mooy ñaari mbir fondamentalement mooy mooy politique ak sport ci la coow li bare bare ba te lépp jàmm la sport pratique la boo xam ne pour defar yaram la xaj na dem na ba nekk industrie léegi di indi alal di indi xaalis waaye départ ba pour defar ji jëmm la woon parce que dafa baax dafa baax ci jëmm baax dafa baax ci dund ci dund góor ak jigéen mag ak doom ñëpp ko war a def mais mu dem a dem nag ba léegi nag business nekk business nekk industrie sax far di di générer ay millions sinon ay milliards loolu yéen a ma gën a xam beneen aspect bi mooy politique politique au départ dafa lem nekkoon mooy li li ñëpp bokk dénk leen ma ko ma saytu leen kii ne li ñëpp bokk dénk leen ko ma saytu leen loolu kay jërë waxante lu ñaaw ndax yow moomuloo ko mayuñu la ko jëndoo ko sarafuñ la ko donnoo ko dañ la ko dénk pour pour pour un temps déterminé kon yàgg yàgg dañuy génne si loxo diggante seen koy yox diggante seen koy yor bu ca wax lu ñaaw bu ko def bu ca def jërul wax lu ñaaw jërul def ci lu ndax lu ñu nettali balaa yàgg histoire du Sénégal nag dafa yàgg mouvementé li ngeen di wax mouvementé yàgg yàgg yëngu yàgg bari violence waaye dafay wax lu ci bari génération yi fekki wuñ ko ndax fi ñu ci ëpp ne borom xool moyen bi daanaka 35 ans wala jëm 40 jëm jëm jëm suuf mais benn benn yi nga xam ne fekk nañ ko wala ñu dégg ko diggante Lamine Gueye ak président Senghor lu ne xew na te ñuy xew yëpp loolu ak gënoon a wax ne ku dellu ci histoire Sénégal yii xew bu mu la jaaxal nuróo na ci wet waaye loolaa gënoon a garaaw ndax jaxase na ay kër jaxase ay tariqa jaxase ay mbokk ñu rey ci ay nit lu ne xew ca waaye da dañu mujj woo te président Lamine Guèye moo fi indi président Senghor te kon di jàng Senghor daana wax ne dafa dugg ci politique par accident da doon jàng di def ay recherche ñëw Sénégal pour bëgg préparer une thèse la poésie sérère président Lamine Guèye gis ko mu la ñu pare ñu convaincre que ba mu dugg ca spécifié parti ñuy dem di dem di dem di ba xam nga réero ah, réero réero politique ba lu ne xew ay reyante am ci ay lakkante kër ay plainte bu ne xew na lu ngeen imaginer rek xew xew na nit nekk na di meeting ñu dóor ko bala mu dee nit nekk na di meeting ñu jam ko baaxam faatu ay kilifa dem nañ ba dóor ñu waxante te politique rek te dañoo dem ba ca fin ba dañoo mujj booloo UGFIE ak ak ak ñu fusionné créé UPS Union progressiste sénégalaise bokk parti Senghor di président de la République Lamine Gueye di président de l'Assemblée nationale de 60 ba 68 kon kon nga xam ne fi ñu toll bu ñu dàq mukk président diw ak président diw ñu ànd wàll soo ko waxee dañu ni gént président Macky Sall ànd ak président Sonko ñu ànd liggéey soo ko waxee dañu ni gént waaye bu ñu ko dàq parce que politique la te am benn politicien bu mag daan politique dara sa ci lu dul géographie rien n'est stable en politique sauf la géographie am nay jamono ku demoon président Senghor ak président Lamine fi ñu toll nii président Macky ak président Sonko ànd liggéey bu ñu ko dàq politique bi képp la te te mën lu ciy xew rek nañ ko war ñu tànn thème mu jàmm bi ndax réew mi da ko soxla passion yi na passion bi doy na waar yëf yaa ngi gën a jege yëf yi gën di baax te dara dara nag sëñ Saliou Mbacké mu baax ma leeraloon nañu ko ne woon ne politique boobu weesuut ñaar bëgg falaw ak bañ a falaw bi rek weesuut bi lu coow bari bari rek ki nekk au pouvoir day def lu mu mën ak lu mu xam pour des au pouvoir hmm. ki bëgg accès accéder au pouvoir day def lu mu xam ak lu mu mën pour accéder au pouvoir ñaar yi rek la jurul saagante jurul lakkante ay kër jurul rey ay nit jurul yàq alal li ma wax rek mooy dañoo war a delloo si xel yi delloo si eh, xam ne Sénégal ñoo ko bokk te it kuñ fi dénk dara lu mu réer yi juddu nga du yàgg yoroo te boo toogee juddu ko yor si am laxan Mbàkke bu ne woon na du la romb rek ah. ba mu jógee yàgg loolu dafa dem soriwul maanaam course da ar yi kenn mu jëlee mu lu la yomb xel wa neex rek hmm. ba mu jógee yàgg loolu dafa dem soriwul kon nag loolu boo ko defee da ngay nekk règle boo xam ne boo ko appliqué a daw ci bare bare la te te dégg na ni ni ngeen ko traité gis nañ sax invité ba tudd leen ko waaye nag dañuy tudd li ñu xam tudd bu dee wax année kàllañ dénk lu mu rëy rëy rëy am mandat la wala am nomination juddu nga lu yàgg yoroo ko boo toogee tuddoo ko yor kon diggante ba nga koy yor jël ko waxante lu ñaaw ana président bi Diouf ana président Abdoulaye Wade ana président Seba ñu ko jiitoon ci des ak ñeneen ñeneen ñeneen li fi nekk tamit lu mu yëngu-yëngu rek dañuy daal Cheikh Abdoulaye bu baax moom mu tudd tam ne woon na mbir mi du mu yëngu-yëngu na nga dana ma sa dal na nga seet dal nga ndax buy dal bay laay yu bëri lu mu yëngu-yëngu rek ay xel mu ko xel gën moo ci dëkk kon bu ko defee rek bu ñu xamee ne ay jullit lañ ay sénégalais lañ ñoo bokk réew mi ñoo bokk njaboot bi ñoo bokk suuf si mënuñoo tox feneen te li ñuy wax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar te boo ko xaroon te na ko boole da nga ko faj te coolal lay indil rek ndax boppu xar bi na suñu dëkk loolu faj faj ko bu ko defee nag bu xam li ñu bokk xam ne mënuñu ko sédd Cheikh Abdoulaye Mbax mu bëri daal wax ne ay nit ñu bokkee loo xam ne mënuñu ko séddoo mënuñu ko séddale kenn mënu ko jël bàyyi sa morom dañuy rafetal bokk te loolu mooy réew yi loolu mooy diine Sénégal dafa tuuti dafa tuuti koo fa sa mbokk la mbaa muy sa mbokku mbokk wala muy sa xarit wala muy sa xarit xarit ko defee wax lu ñaaw def def ñaaw xarit fi boo ko defee da nga koy rëccu te lu yëf yi ñàng ñàng ëllëg mën ne woon lu mbir yëngu-yëngu da nga seet dal be ndax bu dal dañu laa yóbbaale ndax ay ko defee rek moo taxoon ñu tànn thème bi mais xam ne nañ ko te it di leen nokkeel nag ndax ñeen ko traité ak jataay bi xëy na xëy na mbooloo yi moo nag dina bari cadre bi moom nag gën a changé mais valeur bi ngeen wax kenn mënut a wax lu ko lu ko weesu su ma defoon grand théâtre wala so wala Sorano la ko wala Masalik wala fu ngeen ko mën def wala si seet mënuñu faa guddoo kii wala nag dañoo bëgg dañoo bëgg spectacle ak ak ak yëngu waaw man ndeysaan moom moom nit spectacle la am na génn kii ñu fa def wax ne bu yàgg diw day def politique spectacle waaye ñun dañoo dem dem sax bay def léeg-léeg religion spectacle sax nag ci ñun la moom dañu ko ëj bi ñu ko mooñaale waaye nañ góorgóorlu rek dellu ci njàngaleem sëriñ bi jàmm dem ci ndigli sëñ bi xam ne lu ne lu ma ta wax wax na ko lu ma ta def na te itam réew suñu Tuubaa ne réew rafet ko jot lu bari bari mën a si bari bari lu ñàngal bari bari jàmm rek fi mu ndax li mu ñaan ya borom mu jox ko xam ne li mu wax yàlla yonent a sallallahu alayhi salaatu wasalaam ku ko war a aw doj sax mu xel mu xel li ndox lu ne ñaan na ko lu ne wax na ko lu ne wax ko yàlla bopp yàlla borom te te yàlla te te yàlla nangu na lépp te nee na sama lépp yàlla yàlla boo xam yàlla nangu na si lépp lay won lam lam nangu jàmm gaa ji te sama yoon rey melentaan bokku ci melentaan bu ko su ko rey xam lu lu ko doon lor tam dafay bàyyi noonu rek la ci gën kii kéemaay nag mooy bu ko dara doon lor la tax mu koy bàyyi du ko faxas bu ko yoodoon màtt wala lor wala dara wala dara du ko faxas day bàyyi rek ndax mu ne bu la dara dee màtt nga di ko faxas instant boo koy faxas sa xel ca loolu lay nekk dana génn yàlla dara am dëgg ci biiram dara war a lu war a génn xelam war a yàlla am ci kon moom nekk beneen bi kooku bu sëb sëriñ man sab hmm. a am auteur ci dañoo wax ne dañoo wax ne euh, euh, euh, ñaari mbir dara du ko matt wala kii ba faxas ko du sol mbubb mu am ñun ndongo yi fi ne ba seeroon xam ñaata poche daa am daanaka xanaa am na dafa koy juróom poche juróom waaw te booy dugal dara dama koy waxee da nga koy dugal ba ci biir nga téye ko fa door a génne sa loxo ndax dafa am te jamono nga soxla nga soxla la ca poche ba boo soxla la ci poche ba nag da nga ci dugal sa loxo ko làmb mu ne jamono jam koy làmb sa xel ci loolu lay nekk kon dana génn ci yàlla adduna gi ci biir na bu jar génne xel ci yàlla ëpp am boo doon seet nga ne koo xam ne mos am bu mu am poche nga ne Serigne Touba bala ngaa wax waaw nga ne nga ne bala ngaa wax ñaareel dégguma ko ci moom laa mës a déggee ku am ku dul am poche ah, ñu ngi dëgg ñu ngi dégg voilà kon ci ci moom laa mës a déggee ku ku mësul am poche te poche kenn tëriwu ko araam sallallahu alayhi wa sallam sax moom wax na ne adxaltu nafsi wa jamia ahli fii jëy bi afdalil wara zil fadl a jëy dañuy baax baax nga xam ne kii ko wax moom kenn xamul doon ñun ñëpp dugal nañu ci poche yonent bi adxaltu nafsi wa jamia ahli du mooy ñun fii jëy bi afdalil wara zil fadl waaye moom mi ko wax musta am poche ndax waaw ndax la tax mën ko wax poche gën a kii ma ne ndax booy lamb dara sa poche instant boo koy lambee sa xel ca loolu lay nekk kon a génn ci loolu moo tax lu koy mat sa wala lu ko kii lu ko faxas kon kooku ku muy sa modèle ku muy sa sëriñ sa royukaay da ngaa war a am auteur ci yu bare bare bare da ngaa war a def seen saari Mbàkke waxoon ne rey ku baax baax na ndax soo mënta mel ne moom da nga raw sa njëkk sa sa maas dañ fexe ba ñun ñëpp nga raw suñu maas rek ci royal bu sëriñ Tuubaa mi nga xam ne modèle la ci wàll yëpp modèle la ci jàmm modèle la ci xam-xam modèle la ci solidarité modèle la ci sëñ Tuubaa preuve bu mooy mës mës mës na tax asakay am mos ko que asaka boo ko mu am ab xaw la at boo ko jël alal ji denc ko fenn mu am mu toll ni saam mu nekk fa at doo laaloo ko asaka doon ko war suñ ko war denc de bay bay natt asaka demul ko amul poche fort denc dara amul tool amul dara amul poche dara lu ñëw rek def jënd moo taxoon nar gànnaar ba ne ko alal ji dem koy tasaare mu mel a lakk sa loxo tafarraqatil amwaalu minka sadar madar banaanuka laa tulqi yow da ngay mel ni alal ji ñëw sax day day xaw a lakk te du ko laal loo ko mën itam tegal foofu mu tegal foofu nañ ci def ko laal kon kooku kuy sa xel dafa a dal bëgg rek mooy ñu xam ne rek Sénégal ñu war a dalal xel a am yaakaar xam ne réewu Sëñ Tuubaa nekk jàmm rek fay xew mu bari bari dana sa te bu te gannaaw dana sa dal nag dañ seet dal ga ndax buy dal bañ ñoo bañ ñoo yóbbaale waaw ndax ay xel di ma ko waxee di ko seet dal ga ñu ngi suñu dëkk pour course de forme mesurée da ngeen daanu mbaa ngeen fa mbaa dara rek waaw xam nga yàlla yàlla dimbale yàlla yàlla faj aajo yëpp rek ñuy sant ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw mbokk yi teew yëpp ak waa bi ni ma ko waxee ndax seen liggéey moo a insisté moom kër gi moo yor liggéey bi lépp nañu koy def ci kilifteewu Cheikh Abou Mountakha nga xam ne ni nga ko xam xamee moom moom modèle la njàngale ma ak wayat ak taalibe la ak it daara ji mu bëkki démb ak ak nii mu taxawee xasiidee ci koor gi loolu ab ab soññaat la ak daajuwaat la ak ab bindu koy sal waaw kon bu ko defee rek di ko ñaanal yàgg bi lool te it suñu jumaa ji sëñ Mourou ñu ngi ñaan mu ubbi si koog jàmm moo moo tegoon dañ fete ko te sëriñ Abo bi jàmm ay xéewal barke borom ko ko at yu bare lool nawet bi ñuy dugg yàlla def ko nawet bu barkeel waaw waaw waaw ñu fekkee ko at yu bëri nawet bi ñu dugg ñu dugg ci bismillah rahmaan rahim génn ci ak ab alhamdulilahi rabbil alamin te 2024 li ñu ci ragal lépp yàlla na ak seen jàmm te jàll ak jàmm te ka gën ci Sénégal nag am la gën ci moom waaw gën ci Sénégal yàlla na am la gën ci moom lépp jàll ak jàmm ba toogee di ko waxtaane ci barke borom Tuuba yàlla yàlla faj aajo yëpp wa axiru daawaana kon ndigal li moom mat na sëkk te señ bi ni mu ko waxee dégg ngeen ko kon ñu ngi ñaan yàlla nañ ko fekkee déwén bu kenn manqué mbokk taalibee yi tawat yëpp sëñ bi nañ la defal dog ñu ñaanal leen ñi nga xam ne dañoo amoon yéene ñëw te mënuñoo ñëw ñu ñaanal leen suñu borom xam ne lépp rek nal na alhamdulilah rabbil alamin comité pilotage bi piloté liggéey bi Mbàkke ñu ay jàmbaar lool ñu ay jàmbaar lool ndax tayuñu guddi ak bëccëg ñu ngi réunion ñu ngi taxawal liggéey bi ci anam yëpp yëpp yëpp yëpp wax dëgg yàlla Mbàkke waaw kon ñoom yàlla na saa borom may leen kàttan ak wér ñu taxawal kon déwén incha allah ñu waajalaat ko ni ñu ko doon waajalee gën ko sensibiliser. kon sëñ bi nee na sax bëgg nañu yëf yi moom sëñ bee ko bëggee nii rek waaye moom ci boppam moo am lu mu namm rek ci ñun moo tax mu defee ko nii. waaye tey jii bu ko woote feneen waxuma la sax feneen waaye sëñ bi ku ne xam ne yàlla na fi yàgg rek andi suñu borom lafal ko cat. may ko wér yéene bi mu am ci lislaam yal ko saa borom eggale jàmm ci barke borom Touba sëñ bi joxe ne ndigal kon ñu defar sàpp yi ñu julli tàkkusaan ba noppi ñu soog a na egg ci biir incha allah jërë ngeen jëf أميت اليوم أبدا بذكري وأني أكوفنا أو النار والسبا نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما دمت حيا وأكتفي ذنبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارقت تدبيري بدفع والجلبا رضيت به ربا كريما مكرما وقال لداوى